بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum mbokki jullit yi man la seen soppe seen xarit Oustaz Saliou Niang maa leen di baaxe ñaan gi ci yoor yooru aljuma bi képp ku xëy te di ab jullit inchaa allahu taala soo koy saxoo journée boobu yépp doo ci dajeek lu lay lor soo jullee suba ba noppi bala ngay génn sa kër nga wax bismillahi rrahmani rrahim fois juróom fukk nga ëf ko ci sa yaram journée boobu doo ci dajeek lu lay lor mukk booy taal sa oto nga léemu ndax sallallahu alayhi wa sallam daf daan léemu bismillahi allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaana allazi saqara lana haaza wa maa kunna lahu muxriniina wa inna ila rabbina la munxalibuuna ma baamu ko bismillahi allahu akbar allahu akbar subhaana allazi saxara lana haaza wa maa kunna lahu muxriniina wa inna ila rabbina la munxalibuuna loolu mooy léemaayu oto loolu lañ leen andiloon bis ni ki ndax accident yi bari na te kenn mënu cee musle ku dul yàlla kon yal na yàlla musal ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen àndoon ak seen mbokk imam Saleh Niang bu Dabaax Malick daañu ñaan ci lépp lu baax ku bëgg a jokkook ñun mën nga woote ci 77 060 96 70 77 060 96 70 wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب